يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa wasilatina ila rabbina mabuusun raxmatan lil aalamiin wa ala wa saxaabatihi ajmaciin amma bacd asalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëwaat ci seen podcast bii di al di am ci seen rajo bii di risaala di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala defal ñu kàddu yu gën a mëdd képp koo xam ne ne bëgg nga ñëw suivre mën nga ñëw suivre ci plateforme yi nga xam ne ne moom nañuy yàgg di wax te mooy Facebook naka noonu tamit Twitter naka noonu tamit Instagram naka noonu tamit ci chaîne YouTube bi nga xam ne moom mooy Risala TV jàng bi ñu fiy jàng nag képp koo xam ne bëgg nga ko xóotal am na cour yoo xam ne ne dañ koy faral di amal cours en ligne naka noonu tamit présentiel képp ku muy itteel rek mun nga ñëw contacter kon bu loolu weesoo incha allah. ñu dugg ci bunt bi nga xam ne ne mooy wax ci teggin yi nga xam ne ne moom mooy aju ci xam-xam lu tax ndaxte ci jotaay bii weesu dañoo waxtaanoon ci li nga xam ne mooy wormaal boroom xam-xam yi naka noon tamit nitu yàlla yi loolu nag moo ñuy dugal ci buntu teggin yi aju ci xam-xam ndax lan ndax xam-xam dafa nekk loo xam ne dafa tedd dafa nekk loo xam ne ci ay aayaat naka noon tam ci ay ahadis ngëneel yi dañ cee nekk loo xam ne lu feeñ lu leer lu ñëpp xam te loolu rek dafa nekk loo xam ne ne jullit bu nekk da ko war a yittewoo waaye nag naka nañ koy yittewoo ndax da ngay ñëw rek jàng wala am na teggin yoo xam ne ne mooy ànd ak jàng bi ngay xam ne mu ngay jàng première chose bi nga xam ne nit ki waru cee juum ci jamono ñi nga xam ne moom lay jàng mooy lan moom mooy boroom xam-xam bi kan la ci kan lay jàngee te loolu dina feeñ ci fin bi ci kan la war a jàngee day jàngee ci koo xam ne borom adab la borom teggin la lan moo tax mu war a jàngee ci koo xam ne borom teggin la ndax képp koo xam ne yaa ngi jàng na la leer na ne teggin yi nga xam ne ne moom la ki lay jàngal am daf la koy wàll de fekk bu fekkee da nga ànd ak koo xam ne ne amul benn teggin wala respecté wul tegginu xam-xam bu boobaa lim lay wàll moom mooy ñàkk teggin ci xam-xam de sa fekk loolu ngay jël di tasaare yow tamit say ndongo muy dem di dem. moo tax nga gis suñu borom tabaaraka wa taala di artu ci mbir mboobu ne nekkul ne képp koo gis rek mu kaalawu rek kooku boroom xam-xam la am na ñoo xam ne dañuy kaalawu waaye seen bopp bi dara du ci nekk moo tax yonent euh, suñu borom tabaaraka wa taala di wax ne yaa ayyuha allazina amanu in jaakum faasiqun bi nabin fatabayyinu bu fekkee dafa am kenn koo xam ne ne faasiq la koo xam ne ne gàccoor la boo xam dafa ñëw ci yéen yéen ñi gëm te dëggu ci seeni gëm na ngeen ko moytu na ngeen too leerlu donc loolu lu jar bàyyi xel la leerlu kan mooy ki nga xam ne moo lay jox information yi nga xam ne ne moom nga soxla ci xam-xam loolu moom mooy premier naka noonu tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ci xadis boo xam ne riwaayé nañ ko ca Seydina Abu Hurayra radiallahu taala anhu ak tamit Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu min annaar képp koo xam ne danga ma fenal benn fen bu boobaa na nga te tey ko na nga xaar bërëb bi nga xam ne moom ngay toog biir safara loolu moo tax nga gis kon bu fekkee na ngay jël ci kenn ci boroom xam-xam yi na la leer na ne kooku lim lay nettali lu am la moo tax mu wax ci beneen xadis ne képp koo xam ne ne danaa nettali ci leerlu woo ba xam est ce que man maa ko wax bu boobaa yow kenn nga ci ñi nga xam ñooy nettali lu dul dëgg kenn nga ci fenkat yooyu te képp koo xam ne ne da nga fenal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo lay ci lan moo la ciy dal maqaadahu minal maqaadahu minal naar mooy ne waaye bi nga xam ne moom nga nar a am moom mooy safara moo tax nit ki dafa war a tànn kan mooy boroom xam-xam koy transmettre xam bi loolu moo tax nga gis waa ahlul xadis côté boobu ñu tar ci ci sëriñ yi sëriñ yi ñoom ñooy kan ak yan teggin nañ amee naka noonu tamit ci beneen xadis boo xam ne ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu am dafa wax ne jëlee nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yakunu fil axiri zaman dajjaaluuna kazzaabuuna mu ne ci mujjantalu jamono dina am ñoo xam ne dañuy feeñ te ñooñ ñooy ñooy dajjaaluuna yi mooy plurielu dajaal mooy ay daj ay taalibe dajjaal na nekk ay fenkat lan lañ ci teg yatuunakum yatuunakum min al ahadis bi ma lam antum mu ne dinañ dikkee ci ay waxtaan yoo xam ne ne ci ay xadis yoo xam ne ay nettal yoo xam ne ne yéen saxaaba yi musoo leen koo musoo leen ko dégg wala abaukum nag naka noonu tamit seeni baay musuñ koo dégg te lool bu mooy saxaaba yi te boo xoolee xadis boobu noonu imam muslim soloo na ko donc loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar a moo tax boroom xam-xam yi di jox intérêt kan mooy borom xam-xam bi nga xam ne moom nga war a jël xam-xamam. moo tax nga dégg salaf yi rahmatullah alayhim ñuy wax na al isnaadu min ad diin al isnaadu min ad diin ñu ne isnaad mooy càllale ci diina la bokk lii ci kan laa ko jëlee kooku ci kan la ko jëlee kooku ci kan la ko jëlee. ñu gëstu ilmu rijal mooy góor yi ci boppam ñu nekk ci biir càll ñi ñan lañ lan mooy seen siira lan mooy seen histoire ñu xam ko loolu borom xam-xam yi xadiis yi wala borom xam-xam yi rek dafa nekk loo xam dañ koo jox eh, xiima dañ koo jox intérêt bu rëy moo tax nga gis lu ci mel ne Muhammad ibn Sirin bi nga xam ne ne rahimahullah dafa génn àdduna ci 69e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk boroom xam-xam bu mag ci xadiis ci firi firi gént ci yeneen ci fiq et cetera mu daal di wax ne inna haza ilma diin mu ne lii de xam-xamu diine la fanzur na ngeen xam aman ci kan taxuzuuna diinakum na ngeen xam ci kan na ngeen xool ci kan ngeen di jëlee seen diine ndaxte li nga xam ne moom ngay jàng moom nga nar a appliqué naka noonu tamit nga gis ñeneen ci boroom xam-xam yi lu ci mel ne ku ñuy dàkkantalee imaamul ustaaz te mooy kan abdullahi ibnul mubarak te mu génn àdduna ci cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa rahimahullah mu wax lan al isnaadu min diin isnaad càllale ci diine la bokk walaw laal isnaad bu nekkul woon isnaad la xaala macha macha kon bu boobaa ku nekk lu ko neex lay wax waaye bu fekkee saa yoo waxee ñu ne la wax bii foo ko teg fan nga ko jëlee kooku ci kan la ko jëlee keneen kooku ci kan la ko jëlee bu boobaa diine bi day daal di jub xocc kenn du xëy di wax lu la neex parce que saa yoo waxee rek ñu xëy na la léegi li nga wax ni fan nga ko teg nga war koo lijjanti loolu moo tax nga gis borom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñu wax ne càllale isnaad loolu xéewal la boo xam ne ne yeneen xeet yu ñu jiitu woon amuñ ko boo demee ci chrétiens yi amuñ ko boo demee ci juif yi amuñ càllale maanaam amuñ benn wax boo xam ne ne mën nañ la indil ne diw moo ko jëlee ci diw diw jëlee ko ci diw diw jëlee ko ci diw ba ci seen yonent loolu existé wul waaye bu fekkee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom da koo xéewalee mu am ay borom xam-xam yoo xam ne dañoo farlu ci mbir boobu fexe ba téye ko ba nga xam ne ne góoru càlla yi lay yëpp dañ koy xam dañ xam ne diw moo jëlee ci diw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man mii am naa sama snad ci imam Bukhari ak imam Muslim ak ci Muwatta ak yeneen téere yoo xam ne saa su ne saa yu may jàngale yenn téere yi dama koy tudd te loolu ba léegi nii kon existé na ba après futur bi tamit day existé donc loolu lu jar bàyyi xel la moo tax kan mooy borom xam-xam bi da koy njëkk tànn ci yan critère nag nga koy tànnee critères yi nga xam ne moom nga koy tànnee du lenn li nga xam ne boroom xam-xam yi moom nañ définir ni kii mooy borom xam moo tax nga gis imam Ghazali rahimahullah mu classé leen en deux parties ñi nga xam ne ñoom mooy ulama yi n'est-ce pas. ñi xam ne borom xam yi ak ulama suuy ñi nga xam ne ñooy borom xam yi nga xam ne ne seen jikko dafa baaxul mooy borom xam-xam yu bon ñan ñooy boroom xam-xam yu baax yi mooy ñi nga xam ne ne jikko yii nañuy am déjà premier bi moom mooy dañuy nekk ñoo xam ne ne à chaque fois boo leen xal xoolee xam ne seen yéene sell na seen yéene sell na naka noonu tamit dañuy am euh, li nga xam ne moom mooy naan nafs mooy dañuy moom seen bakkan ba nga xam ne yenn bases yi doo leen ci fekk yenn mbir yi doo leen ci fekk dañuy moom seen bakkan ba nga xam ne ne dañuy koy dominer dañuy fexe ba nga xam yenn bakkaar yi duñ ci duñ ci dugg naka noonu tamit dañuy nekk ñoo xam ne ne dañuy moytu li nga xam ne moom mooy di lor nit ñi dañuy moytu lor nga xam ne ne boroom xam-xam nekkul koo xam ne ne saa balaa moo am lu ko neex rek lor ay nit déedéet kooku du boroom xam-xam naka noonu tamit day nekk koo xam ne ne day dundee li nga xam ne moom mooy lu lew boroom xam-xam boo xam ne lu lu bon rek lay dundee kooku du boroom xam-xam boo xam ne war nañ koo roy naka noonu tamit li mu war a làmbaayoo mooy ragal yàlla mooy lu sëñ Tuubaa di junju ne inna allazina la yaxsha rabbal alamin laysa bi alamin laysa bi alamin walal walaw aftal afnal funun walaw afnal funun mu ne ki nga xam ne ne moom ragalul yàlla kooku du borom xam-xam même bu fekkee mokkal na mboolem fànn yi mboolem ba matières yi nga xam ne ñoo existé ci xam-xam mokkal na ko peeg na ko mais nag ragalul yàlla lu ko neex def il suffit mu def lu ko neex wala il pouvoir teew mu def lu ko neex kooku du borom xam-xam même bu fekkee mokkal na li ci téere yi yépp donc loolu jar a bàyyi xel la ne dafa war a nekk koo xam ne dafa ragal dafay ragal yàlla naka noonu tamit mu nekk koo xam ne day sax. ci imaan bu wér lax na yenn tojaange yi du ko wax du wax yenn bases yi du wax yenn wax yoo xam ne ne yëpp yooyu yëpp ku ko gëm da ngay génn ci lislaam donc yooyu mooy melo yi nga xam ne moom ngay tànnee borom xam-xam mu nekk tamit koo xam ne ne euh, day nekk borom fasaaxa borom làmmiñ bu leer boo xam ne ne lu mu la expliquer rek nga comprendre ko. ci loo xam ne ne euh, day leer du du sax soxla ngay laajaat yeneen question yi lu ci ëpp donc day nekk koo xam ne ne jàngaleem day leer nàññi naka noonu tamit day maîtriser domaine yi nga xam ne moom lay jàngale loolu moom c'est logique lépp loo xam ne jàngoo ko euh, loolu mënoo koo jàngale loolu olof yaakaar naa wépp lépp na ko naka noonu tamit ñi nga xam ne moom la warta am mooy yenn jikko yi lu ci mel ne lu suñu borom ko wa taala di wax ne yaa ayyuha alladina amanu li ma taxuluuna maa laa taf maa laa tafaaluun lan moo tax yéen ñi gëm te dëggu ci seeni gëm lam moo tax ngeen di wax loo xam ne doo leen ko def ndax lan kaburat maxta ma kaburat maxtan dafa nekk lu rëy lu diis hindallahi ci suñu borom tabaaraka wa an ci lan an taxuulu te ci ngeen wax maa laa taf maa laa tafaaluun ci loo xam ne doo leen ko def donc loolu munoo kon gisee gis benn nit boo xam nee na moom boroom xam-xam la ba pare du def li nga xam ne ne nit mënu wax ne borom xam-xam la ba pare du jëf li nga xam ne moom lay moom lay digal nit ñi ndax da ngeen di digal lu baax ba pare di fàtte seen bopp li ko alxuraan waxee ndax da ngeen nit ñi ñuy def lu baax ba pare di fàtte sa di fàtte yow sa bopp yow mi nga xam ne yow yaay borom xam bi donc dafa war a nekk koo xam ne yi muy digle ak yi muy tere yëpp da koy gis mu koy appliquer waaye wax bi nga xam ne moom la ñenn ñi di wax naan ay xool leen li may wax waaye bu leen xool li may def loolu wax bu yàqu la loolu yax wax bu yàqu la ndax lépp li nga xam ne moom ngay wax noonu kon dafa nekk contre contre yow moo tax nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di nettali benn waay boo xam ne day ñëw yowmal xiyaam ñu war ko dugal safara am ñu ko xàmmee ci biir ci waa koñ bi ak ñeneen ne ko waa yow xanaa nekkul woon yow yaa ñu doon digal lu baax di ñu tere lu bon xanaa nekk woon yow an kay man la kay man maa leen doon diggal lu baax ci àdduna di leen tere lu bon ci ci ci àdduna ñu ne ko léegi kon lam moo tax nga nar a dugg safara te ñun ñu ngi nii mu ne leen kuntu dama nekkoon amuru bil ma'ruf wal wala wala ati wala ati dama nekkoon koo xam ne ne dama loon digle lu baax waaye daawuma ma def dama leen digle lu baax waaye daawu ma ko woon def julli julli leen woor leen def leen lu ba leneen saraxe mais man nag bu fekkee man rek maa ci des man duma appliquer dara man noonu laa ci meloon li ma leen doon digal yëpp daawuma ko woon def wa anha te dama loon tere anin munkar ci njombu téef ci lu ci bàkkaar yu bon yi wa ati wa atihi ba pare daan ko def dama laan digalee lu bon dama daan euh, tere lu bon ba pare daan daan ci daan ci nekk dama laan tere nit ñi bu leen njaaloo dama daan tere nit ñi bu leen sàcc dama daan tere nit ñi bu leen blood dama daan tere nit ñi bu leen parier dama laan tere nit ñi bu leen lekk riba dama daan tere nit ñi bu leen lekk bu leen naan sàngara et cetera waaye lépp la xam ne moom laa doon tere man dama ko doon def. kon loolu wax wax boobu la xam ne nit ñi am ñenn ñoo xam ne dañuy wax ne ne xool leen li may wax waaye bu leen xool li may def. loolu wax bu yàqu la ndax te kooku noonu mooy type exemple type ki nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi di wax nii te xadis bi muttafaqun alayhi la saxi euh, boo demee ci saxi Buxaari ak saxi Muslim da ko fay fekk kon loolu jërë bàyyi xel la kon lii day cëslaay la ci kan mooy borom xam-xam ak yan borom xam-xam lañ war a moytu donc dafa war a nekk koo xam ne yéenam day rafet dafa war a nekk xam ne ku ragal yàlla lay lay nekk dafa war a nekk koo xam ne kuy topp li nga xam ne moom lay jàngale lay nekk dafa war a nekk tamit koo xam ne ne zul axlaax dafa war a nekk borom jikko yu rafet loo xam ne day roy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan la xam ne ci biir bite day jéem mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa naka noonu tamit mu nekk koo xam ne ne ku tedd jikko la mooy li ma wax léegi nii dafay war a nekk ku tedd ko nekk tamit boroom xam-xam ndax tamit du boroom xam-xam xam-xam du takk fenn xam-xam du tamit sant xam-xam du tamit tiit xam-xam nekk loo xam ne tamit euh, benn këyit rek moo koy wane waaye xam-xam ci dënn góor yi lay ne moo tax nga gis boroom xam-xam yi ne xam-xam danaan nekk ci dënn góor yi léegi nag mu ngi ci téere yi waaye nag liy tijji téere yi nag mooy li nekk ci dënn góor yi ba tey donc loolu lu jar a lu jar a bàyyi xel la xam-xam loolu la demee boroom xam-xam nag noonu lay noonu lay mel ba pare mu nekk ñoo koo xam ne day mën a muñ balaa yi ndaxte xam-xam dafa ànd ak ay balaa teggini bi moom mooy lan moom mooy di ko muñ kon yooyu quelques conseils la yoo xam ne ne euh, yu ñu mën a jox ki nga xam ne moom mooy boroom xam-xam bu fekkee nag teggin yi nga xam ne moo aju ci ki nga xam ne moom nekkagul boroom xam-xam waaye day sàkku xam-xam teggin yi mu war a respecté bëri na lool te jotoon nañ ci jàng tuuti ci jotaay bi weesu te bokk na ci respecté ko naka noonu tamit bañ di utiliser yi nga xam ne moom lay utiliser moom bañ koo fekk ci biir këram wala ci biir néegam ñëw rek tijji fu muy toog nga dem di fa toog naka noonu tamit nga ñàkk respecté ay njabootam naka noonu tamit di ko jël mbéer comme ni ñuy tere ci yonent bi sallallahu alayhi moom tamit dañ koy tere ci borom xam-xam bi nga koy nekk di ko wooyee turam. loolu yëpp dañ la koy teg del ci jiital dara yaa cheikh wala cheikhuna wala yu demee noonu wala oustaz wala sëriñ bi wala yu demee noonu daal nga xam ne ne moom ngay jiital avant turam su la neexee sax nga bañ wax turam donc yooyu moom mooy teggin yi nga xam ne as tur nga xam ne nit ki da ko war a làmboo bu fekkee day sàkku xam-xam am na yeneen comme lu ci mel ne tamit bul ko woowee yenn tur yi kon wax nañ da koy wooye ay oustaz wala yeneen yoo xam rek yoo xam ne da koy wormaal day wane respect bi nga am ci moom mun nga ko ko woowee waaye nag moytul di ko woowee yenn tur yi di déformer turam ci lu mu fekkee ak lu mu fekkeewul waxuñ bu fekkee ñëw na nga wax turam di ko wormaal bu génnee nag dem yoonam boo toogee say mbokk taalibe di di jaar ci turam wala di ko woowee benn tur boo xam ne ne soit ci dërse bi la la aju wala yu demee wala ba muy def dërse bi euh, la ko doon wax nga jël lool bëgg ko ko tuddee wala genre yooyu yooyu yëpp ay ñàkk teggin la yoo xam ne ne kii sàkku xam-xam dèjà baa du ko war a maytu naka noonu tamit bu fekkee nit ki dafa bëgg am xam-xam na ne dafa am ay teggin yoo xam ne ne bu ko respecté wul du mën a am xam moo tax nag mu war a xool koo xam ne dafa am teggin pour mën a am ci moom xam naka noonu tamit teggin yi moo tax nga gis imam malik rahimahullah yaayam ba mu ko ba koy yóbbu ci rabia da ko solal yére yu set wecc ba pare parfum ko defal ko turban ba mu baax ne ko nag demal ci Rabia nga jël ci moom jikkoom tegginam balaa ngay jël ci moom xam-xamam ndax loolu la loolu la mbir bi mbir bi mooy teggin teggin bi déjà moo jiitu balaa sax xam-xam bi di dugg donc loolu lu jar bàyyi xel la kon premier bi mu may teggin moo tax nga gis borom xam-xam yi di la tere yenn téere lu ci mel ni mu xalla ki nga xam ne moom amul yenn niveau yi ci fiqh te parewul à cent pour cent moo tax nga gis ñenn boroom xam-xam di ko tere yenn téere yu mel ni xal muhalla ndax lan ndax ki nga xam nit ki façon bi muy waxee moo tax ndax da gis benn boroom xam-xam boo xam ne ne gaa dafa bëri xam macha allah mais comme buy wax ci yeneen boroom xam yi daf leen di dal te façon bu leen di dalee du ànd ak teggin loolu day day def influence sax ci ñu muy jàngal gis koo xam ne ne day wax naan dégg naa boroom xam-xam koo xam ne day jàngale day jàngale ci juma. loolu da koy dégg lu bëri dégg naa borom xam-xam boo xam ne diw sàngam mu wax ci masala bi nangam kooku lu mu wax du dara dafaa daanu dafa déedéet loolu du waruma ci diggante ay borom xam-xam moo tax en général kuy def loolu xool leen xam-xamam jëm kaw xam du suñu borom tabaaraka taala du ko sàmm da koy bàyyi mu nekk loo xam ne ci génération boobu noonu rek wala quelques siècles noonu rek lay dox après day raaf ndax lan ndax teggin yi nga xam moom la waroon doxalee ak moroom boroom xam-xamam. doxaleewul doxaleewul noonu moo tax nga gis Ibnul Xaasim euh, ba mu waxee waa ji nga xam ne moo njëkk bind li nga xam ne moom mooy mu daw woon ba mu ko woowee ne ko ñëwal ma am lu ma ci soppi ñëwal ma am lu ma ci changé waa ji dafa bañ ne mukk duma ko def mu dal di ñaan ne yàlla na yàlla rocc barke ci téere boobu te noonu la demee. yàlla rocc ci bar rocc barke ci téere boobu nga xam ne téere boobu ci boppam kenn xamul mooy premier mu dawwoona bi kenn xamu ko mais beneen bi nga xam ne moom la euh, ibnu xaasim segg ci ta ak taalibeem bi euh, boobu mooy li nga xam ne saa yoo demee di jënd mu dawwoona boobu ngay mën a boobu boobu boobu moo existé ba suñu jamono tey ji te loolu loolu moom mooy worma bi nga xam ne moom moo war a dox diggante borom xam-xam yi naka noonu tamit nit kii nag buy sàkku xam-xam moo tax mu war a xool kan mooy borom xam-xam bi nga xam ne ne moo koy jàngal ci xam-xam bi naka noonu tamit ci teggin yi nga xam ne moom laa amee est-ce que na ko loolu nag bu fekkee am na ko na na ko topp mu fes fas yéenee jàng ci moom fas yéenee respecté huit huit conditions yi may waaj a wax huit conditions yooyu mooy lan mooy lu imaam Shafii rahimahullah wax na yi laa tanaala al ilmi illa bi sittatin sa unabbiuka an tafsiliha bilbayaani zakaun wa xirsun wa ijtihaadun wa bulhatun wa suhbatul ustaazin wa tuulu zaman imaam Shafii rahimahullah mu ne yow sama mbokk doo mës am xam-xam fii ak respecté yi te dinaa la ko leeral ci anam bu leer nàññ premier condition mooy foofu nga muus zaka un foofu nga muus boroom xel xel bu ñaw ndax lan ndax munuñ bu fekkee dañuy jàngale bu ñu bindee sàmba bu ñu waxee sàmba yow booy bind nga bind demba mokkal wala bu ñuy waxee sàmba nga dégg demba bind ansu bu ñu la waxee la nga bind nga bind moodu donc loolu lu jar a bàyyi xel xam la kooku soppi na ñetti yoon li nga xam ne mooy mooy baatu originel bi kon foo ko muus tamit foo nga am xel bu ñaw wala nga ñawal sa xel te loolu la koy may moom mooy zikkar lu bëri di bàyyi xel li nga xam ne moom la ñuy jàngale jox cër xam bi yàlla day dem ba ubbi li nga xam ne moom mooy sa xol beneen bi moom mooy lan moom mooy wa xër sun foo nga xër ci xam-xam xam-xam boo ci xërul doo am xam-xam bu fekkee xam-xam bi jot na wala dërse bi jot na au lieu que nga dem jàngi nga ibbi téere bi rek sa copain yi ñëw na la nañ leen football nga ne ah kon naa bàyyi ba beneen yoon fomb daara ji boo ñëwee toogaat war a jàng ñu ne la ah euh, nañ dem soirée wala nangam nga ne kon naa fa bàyyi dërsi bi dem soirée xamal ne doo am xam-xam naka noonu tamit nga war a jàng au lieu nga nga jàng cours bi nga nekk ci ay série nga nekk ci ay waxtaan nga nekk ci ay grand place et cetera doo am xam-xam kon xirs foo nga xër ci xam-xam fu ñu la fekk. guddi ak bëccëg yàgg ci nga gis borom xam-xam yi noonu noonu nañ ci meloon nga xam ne ne imaam Nawawi quatorze dërs la daan jël guddi gi la daan toog di ko xoolaat di ko xoolaat imaam Chafi yi même chose ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne imaam Chafi moom guddi gi bu fekkee euh, guddi koor guddi gi lay jàng alxuraan ba mu jeex maanaam kaamil bi lay jàng ci guddi gi bu xëyee tamit jàng jàng kaamil bi tax mu utiliser kaamil parce que kaamil bi moo ëmb mboolem xeetu xam yi. donc foo nga xër ci borom xam-xam yi luñ ci xëree woon foo nga xër ci imaam Malik jaay na këram ngir lan ngir xam-xam comme nga xër ci xam ngir mun ko am mu njëkk nit ñi dañ daan tukki dëkk ba dëkk wala continent ba continent ngir mën a ut xam-xam moo tax seen xam-xam barkeeloon am na benn saxaab boo xam ne ne tukki na rien que benn benn ci pour benn xadis la xam ne un mois la def ci yoon bi kon foo nga xër ci. foo nga xër ci jamono jii nag waxuñ nga dem di def ay voyage mais rien que nga yor li nga xam ne mooy podcast yi ak yeneen yi nga xam ne mooy jumtukaay yi téere yi def nañ ko ci euh, réseaux sociaux yi ak yu demee noonu ci YouTube ak foo mën ti dem instant yi mun nga ko télécharger di ko déglu kon nga xër ci foo mën ti dem booy dem booy dem jàngi wala xaw ma booy dem bureau wala nga booy dem jàngi école et temps boobu ngay toog ci métro bi wala temps boobu nga xam ne moom ngay toog ci car bi temps boobu mën nga faa dégloo loo xam ne ne xam ci loo xam ne ne muusoo koo xam kon xirsun foofu nga xër ci wajtihaadun foofu nga wulli dayooy dayoog coono foofu nga def ci effort yu incontournable foofu nga def ci effort yu dul jeex foofu nga sonn ci boo nangul sonn ci xam-xam doo am xam-xam loolu loolu moom dafa leer boo nangul sonn ci xam-xam mënoo fexe ba am xam-xam sonn fi ci sa alal dépenser ci sa dépenser ci sa alal dépenser ci sa effort dépenser ci sa temps fexe ba nga xam ne ne coono bu nekk da koy daj pour mën a am xam-xam ngay jàng affaire bi du dugg du dugg nga forcer ko sa bopp fexe ba nga xam ne day dugg nga ciy sonal sa bopp guddi ak bëccëg ngay def ay même bu fekkee sax dalay jaral nga xaw a xiifal tuuti pour li ngay jàpp mu gën a mën a dugg méthode boo utiliser daal pour mën a jàpp xam bi nga def ko ngir mën a am xam-xam wa buluxatun faw nga tumuranke ku bëgg xam-xam da ngay tumuranke munoo ne damay damay sàkku xam-xam waaye nag dara duma ma rate yu xew yii yëpp du ma rate Instagram bi du ma rate Twitter bi du ma rate euh, Facebook bi du ma rate lépp lu xew foo ma xam ko déedéet foo mu am temps boo xam ne il faut que ci ci relâche l'affaire foo nga bàyyi mbir bi bàyyi réseau sociaux yi dem sàkku ji xam-xam te jamono jooju nag da ngay tumranke parce que lan parce que ñu ëpp ci ñu ñu xam suñu jamono ji yittewoowuñu xam-xam booy yittewoo xam-xam boo tourné doo gis presque kenn sawet te instant boobu da gis ñeneen ñu ngi seen yitte moo ngi nekk ci leneen ñu ngi nekk ci ay série ñii ñoo ngi nekk ci ay film ñoo ñoo ngi nekk ci ay football ñi ñoo ngi nekk ci ay ci ci yeneen yow nag nga nekk ci téere yi tumranke boobu foo nga muñ ko foo nga tumranke pour mën a am parce que instant boobu noonu noonu instant boobu noonu noonu nga mën a jàng lu bari moo tax nag nit koo xam ne dafa dem ba am xam-xam parfois da koy gis ngeen nekk groupe cinq personnes ngeen inscrit ci benn daara benn personne mooy continuer affaire bi ñeneen ñi nag ñoo ngi ñii ñoo ngi nekk ci salle de jeu bi ñii ñoo ngi nekk di seetaan film yi ñii ñoo ngi nekk ci leneen ñii ñoo ngi nekk ci réseaux sociaux yi dem ba kaye moom mu ngi ci xam-xam bi dem ba kawe dem ba xam am féete kaw ba dem ba nga xam day nekk sax boroom xam-xam ñoom ñu nekk lan di wax lan ay xanaa léegi ñun ñoo doon jànganoo mais yéen doon jànganoo mais raw na leen ndax moom tumuranke boobu muñ na ko ba yàlla xéewale ko mu nekk boroom xam-xam ce pas ngay gis ñoo xam ne genre yooyu da ngay dem ba nga xam ne da ngay gis ñoo xam ne dañuy nekk naa ay waaw euh, xanaa léegi pourtant ñoo doon jàng jàngandoo walla kii nan la def pour am xam-xam kii la xam ne xamul woon dara waaw d'accord xamul woon dara c'est vrai yéen yéen a tolloo woon niveau xamul woon dara mais dafa am lu mu def nag baam am xam-xam entre temps am na lu mu def baam am xam-xam moom mooy sonn bi ak tumuranke bi nga xam ne moom la moom moo ko jaral ba mu nekk borom xam ci temps yu mu sonn temps yi mu def ay cours vingt une heures ba vingt trois heures ah inscrit mu ta daara moom temps boobu noonu yow yaa ngi ci say play yaa ngi ci say film yaa ngi ci say série série bu jeex nga télécharger beneen moom nag téere bu jeex mu jël beneen téere nga bëgg du la ëpp xam-xam. nañ jàll bien sûr moo la ëpp xam-xam wa suxbatul ustaazin foofu nag nga am ustaaz ustaaz nag waxuma comme sama classe gi mun jàngale abatasa jeex na déedéet ustaazin bu ko waxee daraja la bu kawe ci borom xam yi mooy koo xam ne ne c'est un professeur chevronné mooy koo xam ne ne dafa mën a jàngale dafa xam déjà dafa am xam-xam ba pare mën jàngale xarañ ci technique yu muy utiliser pour jàngal nit maanaam lu muy fexe ba nga xam ne ne dafa am ay technique yu garaaw yoo xam ne ne nit ki moom bu bëggee jàngal nit ki rek technique yooyu la koy jaarale même bu fekkee technique bu mu njëkk indi baaxul parce que kii xëy na situation bii moo tax day soppi day adapté wu ak situation bi nga xam ne moom mooy situation wu élève bi pour mën a transmettre xam-xam bi soit élève bi moom xel bi neexul mu adapté wu ba ba jàngal ko wala kii xelam neex na mais dafa distraire dafa distrait mu fexe ba adapté tamit situation ba kooku tamit mën a jàng naka noonu tamit koo xam ne dafa neex xel mu adapté situation ba moom situation élève bu ti am rek moom dina fexe ba def ci yow xam-xam kooku moom mooy oustaz mooy professeur bu chevronné professeur bu aay foofu nga takkoo nag ak moom loolu condition la pour nga am xam-xam ndax la ndax nit ki bu fekkee dafa ñëw rek jënd ay téere ne day jàng xam-xam la majeure partie lu ci ëpp du am xam-xam foofu mu sukkandiku ci boroom xam-xam yoo xam ne ne jiitu nañ ko ci au moins ñu may ko ay base ñu introduire ko walla ñu initier ko ñu initier ko ci kuréelu boroom xam-xam yi naka nañ ciy duggee moo tax nga dégg boroom xam-xamu naxwu bi siiw boobu la xam ne moom mooy euh, abul xiyaan euh, genn àdduna ci sept cent quarante cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rahimahullah mu wax ne ida rumtal uluma bi gayri sheyhin dalalta an siraatin mustaqimi bu fekkee danga yanu téere yi xam-xam bi ci lu àndut ak sëriñ boo xam ne moo lay jàngal moo lay orienté dalalta ala siraatin mustaqimi mais da ngay riir ci wëlis siraatul mustaqim doo xam yoon bu jub bi fan la doo xam yoon bu jub bi fan la parce que ki la war a orienté teg la ci yoon bi ne la fii nga war a jaar e moytul lii ñu bind ci téere bi lii dafa am ni ñu koy interprété dafa am di jën bi ci amee wala lii ni nekkul lu gën a wér ci borom xam-xam yi wala lan moo tax nekkul lu gën a wér ci borom xam yi ban interprétage ndax naka nañ koy interprété wala naka nañ koy déggee wala ban ban wax nañ war a jàpp loolu boo ko amul ku la koy defal da ngay réer da ngay réer walis yoon bu jub bi ak lan deuxième bi loolu mooy premier mooy da ngay réere yoon bu jub bi deuxième yu wa taltabisul umuuru alayka xatta tasiira adalla min tawmal xakiimi mu ne da ngay dem ba nga xam ne ne xam-xam yi day jaxasoo sa ci sa bopp bi mbir yi day jaxasoo sa bopp bi fii nga dem ñu ne baax na fee nga dem ñu ne bon na te même sujet la nangam baax na nangam de sa fekk affaire yi day lumb sa bopp bi affaire yi day jaxasoo sa bopp bi ci benn avis bi ñu ne la waaw lii mooy mashhur nga dem fee loolu ñun fee ñu ne la xawlay ni la fii nga nga waji xay ni et cetera yooyu noonu di istilaax istilaax yooyu noonu di jaxase sa bopp bi doo xam lan nga ciy jàpp ak lan nga ci lan nga ci dul jàpp loolu rek moom mooy ci mazhab yi naka noonu tamit nga dégg parfois benn xadis affaire bi luumu sa bopp bi doo xam naka nga koy interpréter doo xam naka nga koy déggee te xam nga ne am na sens bu ko defee boo amul oustaz bu la mën a dimbali ci loolu mais xam-xam yooyu di dajaloo sa bopp bi day dem ba yëppay jaxasoo affaire yi day mel ni suppu kànja sa bopp bi te après nan ngay mujjoon tasiira adalla min taw min min tawmal xakim yow yaay gën a réer da ngay dem ba kon yow yaay gën a réer ki ñuy wooyee tawmal xakim kam mooy tawmal xakim tawmal xakim benn kenn la koo xam ne ne dafa dundoon ci jamono jooju nga xam ne euh, imaam Abu Xiyaan moom la dund mais dafa donnoon ay téere ci baayam baayam dafa amoon bibliothèque mu daal di donn téere yi ba mu ko donnee nag comme nanguwul jàng téere yi ak sëriñ mu nekk koo xam ne ne moom mooy moom la ñuy jël exemple ci réer koo xam ne dafa réer te xamul ne dafa réer moo tax nga gis kooku da doon jël téere yi di jàngal boppam ba li tax ñu mu génn àdduna mooy dafa jëloon benn téere lii benn xadis xadis bi moom mooy xabbat sawda shifaun li kulli daa xabbat sawda te mu siiw xadis bu siiw boobu xabbat sawda dafay faj lépp loo xam ne jàngoro la moom nag au lieu mu liir xabbat sawda moom mu liir xayya sawda xayya sawda mooy jaan bu ñuul bi fee dafa wax ne grain bu ñuul bi day faj mboolem faj jaan bu ñuul bi day faj mboolem jàngoro yi mu daal di tijji clinique mu daal di tijji clinique ba mu tijjee nag clinique bi mu daal di wax ne moom day fajaati na gaa yi ñëw ba mu amee ay client bu leen dugalee ci biir néeg bi jaan bi la leen di booleel jaan bi màtt leen ñu dee ba mu ko defee nag un deux trois ba cinq personnes gaa yi jàpp ko ci loolu nañ ko faatee te loolu moo sabab génn àddunam la xam ne ci réer moom la la la génnee àdduna moo tax nga gis ba tey euh, imaam abu euh, abu xiyaan mu wax ne xaalal ximaaru xakiimu taw ma law ansi law ansifuu nii la kuntu arkabu li anna nii jaahilun baasitun wa jaahilun murakkabun mu ne àdduna moo tëre rek àdduna moo mënul àtte rek àdduna ci boppam moom moo maanuwul ci nu muy àtte mu ne ma mbaamu mbaamu taw ma moo ne mbaam bi nga xam ne taw ma moom la loon war da koo def genre pour euh, joxe exemple ne dafa mel ne comme si mbaamu taw ma saa yu taw ma waree mbaam bi rek dafay mel ne mbaam bi day wax ne àdduna moo mënul àtte rek moo tax waa ji sañ ma sañ ma sañ ma war ndax bu fekkoon àdduna mën na àtte man maay war waa ji man maay nekk ki kii war ndax dëgg la man nag c'est vrai dama koy reconnaître mbaam bi moom jaahilun baasitun la mbaam mbaam boo gis rek moom ku réer la waaye réer bu oyof la réer nekkul réer bu bu garaaw réer bu oyof la réer wa saaxibi ki nga xam ne nag mooy sama mbokk mi mooy taw ma jaahilun murakkabun koo kii ku réer la ku xamul ne dafa réer mooy jaahilun murakkabun mooy jaahil murakkab mooy koo xam ne dafa réer mais nag dafa am certitude ci réer bi mu réer pour moom nag moo xam parce que liir na téere sàngam ndax na xam na xam-xam sàngam ndaxte moom am na ay Euh, je sais pas moom dafa am modernité dafa am façon bu muy xalaatee bu wuteeg boroom xam-xam yi nu ñuy xalaatee et cetera kooku mooy jaahilun murakkabun mooy koo xam dafa réer te xamul ne dafa réer balaa moo xam ne dafa réer boo moytul àdduna àdduna àdduna tukki moo tax genre yooyu du ñu neex a gindi du ñu neex a dimbali ndax yàlla moo leen nattoo façon euh, façon gisin yooyu loolu moom mooy conseil yi nga xam ne nit ki moom lañ koy jox mooy six yooyu huitième euh, septième bi mooy mu fexe ba nga xam ne ne day moytu bàkkaar yi ku bëgg a am xam-xam doo sax ci bàkkaar yi moo tax imaam Shafii rahimahullah ba muy nekk xale mu ñëw ci imaam euh, Wakiya mu ne ko man de damaa mënta mokkal mu daal di wax mu daal di koy conseiller lu mu koy conseiller imaam Shafii wax ko def ko benn bayit mu dal di wax shakawtu ila wakiyin suwa hizin fa arshada li ila tarkil maasi wa xaala li bi anna ilma nuurun wa nuurullahi laa yuxtaa li aasi mu ne damaa dem ci wàqe di ko jàmmat ne man damaa am problème mu mokkal mu ne ma kon dangay ngay moytu mooy yàlla yi bàkkaar yi del ko moytu ndax xam-xam leeru yàlla la te leeru yàlla kenn du ko jox ab moykat kon ku yoo xam ne dangay ngay sàkku xam-xam teggin bi mooy fexe ba nga xam ne ne lépp lu xaraam nga fexee koo moytu sinon doo am xam-xam wala boo amee xam-xam tamit du nekk xam-xam bu am njëriñ huitième bi mooy bañ a am kerse bu ëpp koo xam ne dafa am kerse bu ëpp du am xam-xam parce que lu mu nar a laaj rek danaan dama ko rus laaj bu ko defee li ngay xam day tuuti ndax dañuy jàngale cours bi doo comprendre au lieu que nga wax ne ne comprendre nga ne comprendre naa wala nga ndëpp ndëppal ñu jàll ci beneen ci beneen sujet te masala bee leeru de ce fait loolu bu bëree moom mooy kër bi day bëri bu ko defee doo am xam-xam neuvième bi moom mooy foo mu nekk koo xam ne ne foo mu nekk koo xam ne ne du rëy ndax képp koo xam ne dafa rëy rek du am xam-xam xool leen seetlu leen naafeq yeeg ak gaayu rëy yi du ñu am xam-xam parce que lan rus nañ dem ci daara ji rus nañ euh, toog ci suuf sëriñ di leen jàngal rus nañ koo xam ne ne moo leen mag wala xaw ma rus nañ koo xam ne ne. Euh, moo leen gën a féete ndaw di leen jàngal ruus nañ ay classe sociale ay kii man su ma fa demee moom géwal la te man géer laa wala kii man maat moom bokkuñu statut social moo tax maat moom mënumaa jàngal moom dafa xaw a ñàkk man ku may mën a jàngal mooy koo xam ne ne maat moom xaw na am situation genre yooyu noonu kooku du am xam-xam mukk abadan ndax rëy moo nekk ci xol bi rëy moo nekk di rëng-rëngee xol bi moo tax xam-xam du ma du fa mën a am place donc loolu jara bàyyi xel la dixième bi moom mooy lan moom mooy yéene bu sell te moom nañ waroon jiital mais nañ koo mujjeel pour mu sax ci xel yi yéene bu sell nit ki yéeneem bu sellul ci xam-xam mën na am xam-xam waaye xam-xam boobu day nekk contre moom moo tax nga gis boroom xam-xam yi naan nit bu fekkee day jàng xam-xam dafa war a sellal jàng bu muy jàng yéene bi nga xam ne moo ko ci moo ko ci yóbbu mu bañ a nekk loo xam ne ne pour ëllëg muy mën a weranteeg boroom xam-xam yi waaw muy mën a weranteeg boroom xam-xam yi déedéet wala mu nekk loo xam ne ne pour mën a lan pour mën a pour mën a nekk di wan ñi nga xam ne xamuñ dara ñi nga xam ne moom seen njàngu soro mu mun leen wan ne moom nag borom xam-xam la nit ku kawe la pour ñu teg ko ci kaw mu bañ koo def tamit ngir àdduna mu bañ koo def tamit ngir diplôme kese. am diplôme kese mën a am yenn partenariat yi mën a am yenn investissement yi et waaye na ko def xaalisan li wajhillah na ko def ngir yàlla rek tax li ci am rek après mu am ci waaye lépp base bi na nekk muy jàng déjà ngir yàlla tax ngir lan gi ak tamit ngir génn ci réer bi mu réer boobu mooy premier moom mooy dixième mi nga xam ne ne nit ki moom la war a respecté innamal amalu bin niyaati wa innama likulli imri'in ma nawa jëf yëpp ñu ngi aju ci yéene yi te kenn ku ci nekk li ngay yéene moom ngay am moo tax nga gis boroom xam-xam yi naan xadis bii à chaque fois dañ ko war a bee salaat ci kuy bind téere nga njëkk ko bind ci téere bi nga fàttaliku taalibe yi naka noonu tamit koo xam ne day jàngale buy def kuur mu fàttali ko taalibe yi ngir lan ngir ñu sellalaat seen yéene. moo tax nga gis yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne jëlee nañ ko ci imaam Tirmizi ñu riwaayo ko ci Kaab ibnu Malik radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa ne képp koo xam ne ne. da ngay sàkku xam-xam pour ñett yi da ngay dugg safara premier bi mooy ngay sàkku xam-xam pour après mën a werante boroom xam-xam yi sàkku xam-xam pour après ne walla man da koy gis ci yenn boroom xam-xam yoo xam ne ne walla ñenn ñoo xam ne ne am nañ xam-xam walla reconnaître nañ seen xam-xam waaye lépp seen dund yépp lan la weranteeg boroom xam-xam yi rek moo leen ci tax a jóg parce que seen début loolu la woon yéene bu ñu amoon ci jàng moom mooy lan mun a bokk di werante borom xam-xam yi mun a wane sa bopp ne am nga xam-xam di voilà di leen contredire képp koo xam ne nag li ngay sàkkoo xam-xam ngir loolu la na leer na ne safara nga jëm comme ni ko yontu sa sam waxee deuxième moom mooy ngir mën a tiitaru ci kanamu sufahaaw yi moom mooy ñi nga xam ne xamuñ dara mooy xamuñu ko xamul dara moom lu ko yéem day day yomb jaxase bopp bi tamit day yoom am na ñoo xam ne ne dañuy jàng as tuut dem ci ñoo xam ne ne jànguñ wala seen jàng soriwul su ko defee ñu gondi leen lu ñuy woyee gondi gondi leen ci quelques mots waaw xëcc fii teg fii taffale fële waaw kiiwal yëngal fii gars yi yéemu. su ko defee nag ñu xamul dara moom ñoom dañuy yéemu nekk ci affaire yi voilà wala ne voilà instant kii borom xam-xam bu mag la xanaa xamoo lu xanaa gisoo yu muy nu muy waxee fekk na waa ji waxul dara. beneen bi troisième bi tamit moom mooy lan ngir lan ngir mën a màgg ci kanamu nit ñi ñëpp di la xool comme état borom xam-xam nga xam ne da ngay jël kaala bi teg ko ca kaw xaraamul mais dañuy wax ci koo xam ne loolu rek moo la tax ngir ñi ñi gis la ñi waaw foo dem rek wane sa bopp fu ñu toogee rek nga jéem a euh, wane ne yow borom xam-xam la ngir lan ngir nit ñi fonk la ngir nit ñi xam ne yow nekk nekkoo n'importe qui ngir ñi ñu xam ne kii borom xam-xam la ngay wane sa bopp loolu képp koo xam ne ñett yi yaa ngi ci yooyu wala loolu moo la tax ak sàkku xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom tabaaraka wa taala dina la dugal safara ndaxte lan ndaxte yéene bi tax ngay jàng moo sellul kon loolu jara bàyyi xel la ci wàllum xam-xam. waaye tamit koo xam ne borom xam-xam la amul droit di téye xam-xamam amul droit di nëbb xam-xamam. ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xam ne da nga am benn xam-xam boo xam ne nit ñi dañ koo yittewoo mu nekk loo xam ne c'est primordial ci seen diine bu fekkee da nga leen bañ a jàngal xam-xam boobu na la leen keroog yowmal xiyaam dañuy jël benn birigu safara tafee ko sa gémmiñ nga wax ñu ne la noppi woon kon tey dañ lay noppil daal lay dugal safara donc loolu jara bàyyi xel la euh, ci wàllum xam-xam ñoo ngi jéggalu mbokk yi di jéggalu ñëpp lépp loo xam ne ne lu ci jubla suñu borom la tabaaraka wa taala lépp loo xam ne nag lu ci dëng la jàmbu xeebu biiral Euh, képp koo xam ne nga bëgg ko waxee képp koo xam ne ngaa bëgg ay cours en ligne ak yu demee noonu mën nga inscrit ci moto Daara Suuna mooy école bi en ligne ak tamit présentiel bi xam moom la ñuy amal in uridu illa al islaaha mastataxtu wa tawfiqi illa billah subhaana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salaamun ala al walhamdulillahi rabbil alamin يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما